wa rahmatullahi taala wa barakaatu Sidi Abi Bakrin président daayira bi membaram yi mu sëqal daayira bi bokki jullit yi fi teew ak jullit yi fàddu yépp nu ngi leen di nuyu maag kilifa yi ma àndal di leen ziyaara it bu baax ñu ngi ñaanal sunu bopp di leen ñaanal di fàkku it ci yéen ñaan di baalul sunu bopp baal leen di leen baalul di fàkkut ngeen baalul nu yàlla na yàlla boole jéggal bi jaay rasulillahi di gërëm it sant yàlla ni ko sëñ bi waxe sant yàlla duñ ko wax ci gémmiñ alhamdulilah doyul sant yàlla dafa laaj tuur ñaq dafa laaj dépassé dafa laaj soppi barab dafa laaj soppi melo alquran qad aflaha almuminuun sànni na jikko boo xam ne niroo naa seen bos bi waaye it furqaan tabaraka la seen sala furqaan sànni na jikko bu niroo seen bos bi xar yëpp naam xari yàlla waaye xaram sa bés kee ci raw jàng yëpp neex na yàlla waaye bu tey bi daje guddi gii bi sëriñ bi doon junj ci raw ndax fu bopp bi gën a fatte gën faa woowee daal gi gën faa tàkke alquran na ne wa ibadu rahmani lasina yamsuuna ala xarde xaruna di indi nag seen melo wa isa xaatabahumul jaahiluuna qaalu salaama di indi seen melo ba ak si ne wa ida maro bi laxwi maro kiraan mu ñëw fii ci xadaf laal muminun ne lasinahum ani lahwi mooridun yooyu ñaa doon dal yàlla na sama jaam yi pire pire duñu toor pop duñu toor pop duñu dimbale kuy toor pop duñu jógit wàll ji pop bu ñuy dox di sox bu ñuy dox soxla bu jox ci pofax dañuy jéem a sinanteel poma wa isa maro bi lahwi maro kiraama kolu jëfi tax woonu jëpp maa ngi soxla woon kër Ousmane Kare maa ngi soxla woon kër Serigne bi sama diggante kër kër gi pamaan ci diggante bi yàlla ne samay jaam wa ibaadu rahmaani lazina yamsuuna alal ardi xawran wa iza xaatabahumul jaahiluuna qaalu salaama muy lim seen jikko ba lim ci fukki jikko ak juróom ñett ne nit lañu ñoo xam ne sax iza maroo bi laxi maroo kiraama foofu la wax fële nag dafa wax ne walazina hum anil ahli anil laxi moobiruun ay ndigal la bu ñu tàmm du al kubir du al kubir kubir mooy firi po toog nag du am fii kenn dafa toog addina bii laa wax laqad xalaqnaa l'insaana fii kabad xanaa kay yëngu ba mu teer muy neen mbaa mu yëngu ba mu teer ñu mu jari duma mooy am waaye toog du am gisal soodu jaam yi ñeent lañu ñu lay lañu bind ngir ñu liggéeyal ko pour ñu dugal leen àjjana ñu ñu bind leen pour ñu liggéeyal ko te du leen tabbal àjjana ñu mu bind leen pour duñ ko liggéeyal te mu tabbal leen àjjana ñu mu bind leen bëgg ñu liggéey ko nanu ñu tabbi àjjana arba tax fani ñeenti xaaj la ñu mu bind tànn leen pour ñu liggéeyal ko ndax mu dugal leen ca kër ak teraanga bi mu di yërënti yi di lawliyaa yi di saalihiina yi di siddiqiina yi ak muuminiina yi ñooñu lay liggéey ñooñu ñaari ba nefa ñoom dooñu alaawatul limaani ci àddina ak ni'matul janaani ci alaxira waxab lana alaawatul limaani ma alxanaa wusi ëppal abdaani ci aj maa liggéey na ko daf leen bind pour ñu liggéeyal ko mu teral leen këru àjjana ba nga sa bara ñu bind leen pour ñu liggéeyal ko te di leen yóbbu àjjana dañu ci yàlla musa iblis sax ñoo la liggéeyee bala kon daa war a dégg leen kon kama seli seytaane is qaala linsaani kfur falammaa kafara qaala innii barii'un minka innii axaafu rabbal aalamiin fa kaana aaqibatuhumaa annahumaa fii n-naari khaalidiina fiihaa wa bi'sa al-masir waaye ji demoon na bu bëgg a dee mu ngi gàggante ko ci lawhul mahfuus juróom ñaar fukki junni ci kilomètre ko daan wër ñu dikk leen di leen yàkkal di naan diit ngeen mu nga safara si gaylu mu ngi ci lii xasal yii la nag am na taalibe bi mu gën a gërëm ci taalibe ba mu tollee ci sukuraat ak ngërëm gi ko góor gi ngërëm góor gi dafa yomb dafa koy jàng yaasin mu ci gën a ko tëjëf sa gémmiñ bu fi jàngi lool mu ne ko waxal boog laa ilaaha illallaah mu ne ko lànk naa du ma ko wax mu ànd ak tuut maa ngi yëpp tuut la yoroo gaa bi ci guddi gi mu gis ko mu ko ceel di ko jëri ci njaanam mu ne sëriñ bi ne ko ñun la bi lii te sama taalim laa ci gënoon mu ne ko ñetti jikko laa yoroon yu la réeroon réer yi ma nekk ci réewul yàlla ma ma yóbbu fii premièrement dama daan rambaaj loolu ma ko wax du bokk ak li may wax gaa yi li ma gars yi daan wax du bokk ak li ma lay wax ñaareel ba dama añaanoon mosuma gis benn borom teraanga te dama xot bi xawul a dox ñetteel ba dama yoroon jàngoro ju bon am docteur bu ma gëm mu ne ma boo dul def weer wu ne nga naan kaasu sàngara jàngoro ji dina la gaañ guux yooyu ma dul guux ak meloo waa ma yëngu fii da sukaraat jotee yàlla tere na alquran tere na baatu lay lay la la kooku bokk na ci ñi liggéeyloo te duñ leen yóbbu àjjana ñaataa ngoog ñaari xaaja ngoog waaw kon ñetteel bi mooy ñi yàlla bind ngir àjjana te liggéey loolu leen du ñu jeex nag bari na lool mooy xëy rek jaar ci càncaay rek ñu yedd yedd nga të të nuur ci nem nuur ci nem ba yàlla xëy xiir la ci tuub nga tuub ci suba ca ngoon nga dee laajal waa kër firaw la kër fir xaw na fir xaw na ñu téere yaa ñuy jamaate ana ñen nit a xëy di giñ ci mbindeef ni ñoom foog mbindeef def ko yàlla fonk ko ba ba ñuy giñ giñ ci turam ana ban buri ba xëy di giñ ci nit ku beneen ni firaw na jant soñu tàbbi àjjana waa kër firaw na la bañ teewee yëpp Moussa teew ñii def njibar ga dañuy dañu ayee ba seen tournée dañ ne di izzati firaw na inna lahu xaalibuun ñu ngi jëm ci màggaayu firaw na ne nooy gañe Moussa tey Moussa di kenn ñuy juróom-ñaari téeméeri jibar jabar benn bu ne la nga yor ba nga ko wëccee soppeeku na lëm lii mbott lii jaan lii jànkalaat lii ci ndax di ram-rami Moussa sax tiit na tiit na ba defe ne dañ ko gañe defe ne du am victoire waaye yëpp lu ko yàlla joxoon yëf yaa ngi yàkkamte day maj maj yi ci loxo suñu borom naan ko laa ta xaffa innaka antal a'laa bul tiit bul tiit bul tiit yaay jël victoire alqi maa fi yaminika yaa xaral yëpp yi mu ne ko xër sànni yëpp a soppeeku jaan seen say yaa yaa tam tasxa songale rek di wan seen président bi nga xam ne mooy seen jiit nag dafa silmaxa mu ngi laaj gars yi résultat ñu ne ko yëpp ba mu yoroon la wëcc de ba mu ko wëccee def na jaan de mu ne ana jaan di mu ne ñu ngi mu ngay wan na suñu yëf yi mu ne wan gaa yi kat li ñu indi woon sept tonnes la woon jaan jaa ngi toll ni bant di leen war na rek mu ne fu mu toll mu ne ñu ngi xaajal na de fu ñu toll woon ña ña ña toll ña waaw la mu def ñu ne woon nañ ne lépp song na turbine bi gouvernement ba nekkoon gaa yi falxaloo juróom fukki junni ñu ta dee keroon ngir tiitaay mu dem wër pale bi trois fois jaan ji fop ca kaabaab ak suuf gi roof ko ca fondement bi na ñëpp di koy ba mu tiim toiture bi firaw na naan ko doy na doy na firaw na kat yàlla yàlla jayoon na ko ba quarante jours yu ne benn yoon lay dugg wateer waaye ba mu gisee jaar yi Moussa jooju jële na ci tiit moo xam ne ba ni mu dee suur bu ne quarante fois lay dem fat quarante ah gars yi defe naa ci nooree ñu nekk dañuy wax da dañuy joxante xaw ma kado xaw ma la ta xaf benn baat la kado bu rëy la nag mooy firi bul tiit noonu mu mel noonu loolu muy firi ni loolu noonu muy firi ni la amee doole soo ko calculé mille cent onze la ñeenti un la mille cent onze mooy la ta xaf xadam dellu bi juróom benn téeméer la ça tombe de quatre cent six cent plus quatre cent defe naa mille la cent quatre-vingt la lam di trente defe naa onze ngoog fekk mille onze cent lam gi di trente kon mille cent onze cent gi quatre-vingt la laaf gi di trente muy cent dix liif gi di un muy mille cent onze tiit moo am mu mu mën a doon nga jàpp jàng fatiha def salaatu ala nabi bàcc la tax xaf poir lu ci mujjee ndëkte jublu ci alquran nag ñaar yoon benn bi Moussa lañ ko wax yàlla ko ko wax yàlla ko ne la taxaf innaka anta laala waqi ma fi yaminika talaqaf ma yafikun benn bi it Moussa lañ ko waxoon waaye góor gu sooy doon na ko ko wax nga gis ci constance ci Moussa toll ñu ne ko la taxaf yaay jël victoire bi boobu yaay jël victoire bi sept cent personnes contre kenn ñooñu ànd ak gouvernement nga ànd ak yàlla yow kenn ñu ne la la taxaf la taxaf ji dinaa ñëw sama mujj ba ma réew ci njuumte tey daw génn trottoir bi dem ci sooy bu ba mu ko nettalee li ko dal daf ko ne la taxaf na jaw ta kon bii pour poire la woon pour poire la woon jot na ci bii motif la woon mucc na ci la taxaf na jaw ta mi naa xaw ne zalimin benn bi ay malaaka ko wax maam Ibrahima ñoo ko noonu la taxaf ba basharnaa bi xulaamin alim bu naqar lu yéex a jur maam Ibrahima cent vingt ans am na ko te taawul jabar ji am quatre vingt quinze ans ñuy door a gis Ismaïla yàlla ne ko laa taxaf ba basharnaa bi xulaamin alim kon laa taxaf am na doole ci innaka anta laxlaa laa taxaf am na doole ci inna jawta mina waaw ne baalimin am na doole ba basharnaa bi xulaamin alim gaa yi kadoo ngoog te itam ku ci sa ku ci ku ci laa taxaf ba taxafatoo ku ci laa taxaf ba xaafa dal nga fàttali ko ba ci ñaan lu jàng waa kër firaw naa ngoog jotuñu di jotuñoo oor jotuñoo ak màgg taraxe wuñu ñu ngi xëy ci yoor yoor naan jiw nañ ci màggu firaw na nooy raw booy ci laa taxaf ku di politique maa ngay xëccoog say nawle booy def ci sa xel bu wax ci sa lamiñ innaka anta lax la booy wax la sa xam da ngay def sa xel innaka anta lax la bu dee tiit muñ la tëkku mbaa motif boo def boo koy sikkar del def ci sa xel na jow tamit a xam ne zalimin parce que ismullahi al azam booy sikkar bu nekk sa xel war na koo di feelu ak la ca topp ni ki allah allah kulillah suma zerhum suma zerhum boobu foog nga bàyyi ko sa xel ma dem ñu ngi xëy ci yor yoor ñu yëkkati kër bi nii gouvernement bi toog ñu waxante fee xaw na ne ko kii la jaaxal ci sa nguur ba nga jël ñu bu ñu ko dumaa loolaa defal ay lanaa ajaran in kunna naanu xaalibin qala naam wa innakum idan la min almuqarrabin moo waa ji la jaaxal suñ ko tëree nag ba daan ko xanaa dina ñu am yooyu mu ne aha kañ di ngeen paase yëpp dama leen di nanu ci sama biir ci sama biir ci sama biir na ngeen koy wax déedéet cabinet ci ngeen di bokk waaw ñu ngi giñ ci mag bu firaw na yet ya dal yet ya dal yetu Moussa woon na la ñu def président bara nañu mujj mu ne ko war na ne yépp lépp loo yor nag di ca jibar pour mu soppeeku maa nga di ca ñeengo su noppee boo ko falaatee fokk mu xar mbaa ma toj mbaa ma am jeexi président bi nag du gis mu ne jël leen yet ma xool ko su fekkee mbaa mu xar jibar la li ngeen def lu raw rek su fekkee loolu xarul nag xam leen ne ndawal yàlla la bu nu ci kenn jëf gars yi xool ko ñëw signalé ko ne ko dara méggi ci yéen baa nga mel na mu meloon mu ne kon nan dal di jébbalu fal xaaratu saajidiin xaalu amana bi rabbil aalamiina wa Muusaa قال آمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولنذهبنكم في جسر نعلم ولتعلمن أينا أشد آذان وأبقى نقول لن نشرك على ما جاءنا من البينات فقدي ما أنت تقدي إنما تقدي هذه آيات الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر ما قطعنا وما أخطأنا من سين فلو خير وأبقى قالوا ci yoor yoor ñu ngay gën ci firawna timi sa ngay fekk biir àjjana jotuñoo julli jotuñoo oor jotuñoo saraxe jotuñoo dem màkk ñooñu la bind ngir àjjana te liggéey loowu leen ñaata laa wax ñett mu def kenn ki mu bindul ngir àjjana nag liggéey loowu ko it liggéey loowu ko bind ko pour àjjana kooku musiba ñaari musiba ko dal day torox ci àddina bu dee alaxira toroxaat du noppalu ci àddina ak lu mu jekkoo jekkoo noppalu bu dee gën a sonn ndax nabi ne na al muminu kulluhu xayrun wal kaafiru kulluhu char jullit léppam yiw la jullit du presque benn jamono léppam yiw la bu tiitee moom ci yiw bu bëggee mu ngi ci yiw bu amee mu ngi ci yiw bu ñàkkee mu ngi ci yiw bu feebaree mu ngi ci yiw bu yëwee mu ngi ci yiw bu bëggee mu ngi ci yiw bu meree mu ngi ci yiw bu néewee doole mu ngi ci yiw bu amee doole mu ngi ci yiw bu sukkuraatee mu ngi ci yiw bu dee mu ngi ci yiw buñ ko tappale àjjana mu ngi ci yiw bu bés bañ ci am tab bi àjjana yiw wu réy waa réy réy yéefar lépp musiba la yéefar balaa nekk ci musiba am koppar bu amee koppar mu ngi ci musiba bu wéree mu ngi ci musiba bu ñàkkee xaalis mu ngi ci musiba bu wéredee mu ngi ci musiba bu tiitee mu ngi ci musiba bu kontaanee mu ngi ci musiba bu feebaree mu ngi ci musiba bu deyee mu ngi ci musiba buñ ko rodee mu ngi ci musiba bu bés pencee nag mu tabbi safara musiba piir fama man ahta wa taqa wa saddaqa bil usna wa sami yusra bil yusra wa man bakala astaghna wa kutaba bil usna fa tanina usul usra dafa am ko ñu arab ñu arab yi tudde saqiyu ak ñu ñu tudde daqilu ak ñu ñu tudde musraf ak ñu ñu tudde jayaat ñeenti nit ñi am ci àddina mënuma ko wax nag ci olof waaye bii jawaat la tudd bi saqiyu la tudde ndax jawaat ak saqiyu olof séparé wu leen mooy firi ku tabe ku tabe rek olof day wax ku tabe rek ku nay dañuy waxit ku nay rek am na góor gu muus bu daal wax ne nit ñaa ngi may jëlee ne dama nay waaye nayu ma de sori naa nay dama ràññee rek dama ràññee waaw dama ràññee ràññee ci la nayu ma dama ràññee arab yi ne nañu ku tabe mooy ki fab addinaam yépp sakk fii ko ngir àllaaxira jayaadu mooy ki ko séparé genn wàll gi mu defare ko addinaam genn wàll gi mu defare ko alaxiraam baqilu nag mooy ki fab alaxiraam yëpp addinaam yëpp jënde ko addi alaxiraam desewul dara dara dara waaye musrafa ko yées nag musrafa yées kooku moom peenewul dara ci addina peenewul dara ci alaxira li mu yor lekku ci saraxewu ci mayu ci teddewu ci waaw mu dee it ñu lakk ko boole ci waaye xam ngeen ni kaar xel yi def xel yi daje ba root lii ñu génnee wërsëg yii delloo ko rasulillahi ni ko yoroo waxee sànq sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy aynu rahmati rabbaniya rahmatu rabbaniya suleymaan boobu malaaka rekk ko jëriñoo waaye ba mu dee rahmatu rabbaniya dafa yàq yaqutatil mutahaqiqatil aitati bi markayi ruumi wal maani nekk nuuru akwaani nuuru akwaani mutakawinati ñëw nag ci pelu de addami rabbani addami mooy saahibul xaq rabbani képp ku bëgg ci yàlla dara te jaaree ci moom doo jàll wa anta baabullahi ay imriin ataa min xayrika laa yasxalu ñu góorgóorlu di kulóor sunuy at suñ ko mënoo def juróomi yoon par atit ñu di ko def benn yoon lépp lu fi waay yëngatu te du yàlla suñ ko yëgul buñ ko yëgul di nga ko réccu ji suñ ko fekkee suñ ko fekkewul di nga ko réccu ji billaahi xii xii waxuma ndakaaru de waxuma pàkk bii addina laa wax yàlla indi wunu fi dara lu lu préparel benn bés bés bu danfir bés boo xam ne lu mu adda woon da koy nangu kenn du dese daraja kenn du dese baat kenn du dese am-am kenn du dese xam-xam kenn du dese sañ-sañ ñëpp lay nangu atta sax da lay futti futti yaram mu ne ni nga gane ci woon àddina ngay dajeeg moom bés boobu nag la ne bés bu garaaw la daa leen utal nag benn campement ngeen di ju fa waaj ndax ku jub am xuus da ngay waxu ku jub am xuus da ngay waxu waaw am xuus ku ko jub da ngay waxu boo bañu la tooyle da ngay waxu waxu leen fii xuus maa ngi ñii mu jox leen xel ñii mu jox leen doole ñii wërsëg ñii xam-xam lu mu la ci jox lu ne nag pour nga préparer ko xuus mee tax feneen foo ko dugal dafa nga musiba ñëw ñu fi pour takki jabar ñëw ñu fi pour tabax taax déedéet du pour falu déedéet du pour am koppar du jënd oto ñëw pour préparer bés bu garaaw boobu la bés boobu nga xam ne laa tamliku nafsun li nafsin sayyi'a wal amru yawma isin lillahi te kat bés bi du jaas tukki la moo xam ne amul fomm dematuma fii laa yem nuyul ma leen amu ci re àgg rek àgg rek àgg de àgg de foo jëm bàmmeel koo fay fekk njàccaar bu dara réerul te mu am sañ-sañ loo indiwaale néew dooleeg tooñ di rungu-rungu mi fekk ci ngam nga mu toll ni maam yàlla bari kattan ak doole dara sa dara umpuk nga ñàkk loo yóbbu ci bagage lu dul bokk ci sa mbagam càmmoñ mi ay tooy ba mu fees del mbagam day joor mi néew doole te kat xam na yéen ngeen ko mbir kenn ku ne ci ñun altine tey ji wax naa yow ci fajar xaama nga tànqam lu ko wala nga bañ koo dégg ci six heures tàggu na la wax ak yow xam nga lu mu wax ci suba altine bi fajar xaree mu ne dawat dana la salaamaaleykum mbaa yëg nga ne tey laa fi mos a ñëw bul ma juwaaleeg dimanche de du ma moom de ñoo niroo waaye du ma moom de tey laa fi gëjit talaata ñooy niroo waaye du man soo première ñëw fi tey la xam nga lay suma naar naar mooy foo dugg tey ma dugg fa loo def ma fekk ko loo wax ma dégg ko loo nar ma xam ko maa ngi carte yoo xam ne am naa priorité bu toll ni foo tabbi ma tabbi fa mu la dugg rek fu mu dugg nga jëm biro ngeen ànd nga jëm tolle ngeen ànd nga jëm grand place ngeen ànd nga napp ngeen ànd suur bi toppale rek suur bi toppale néeg ah ba néeg ngay dugg te doo fa fekk ba cëb fekk mu ngi ba cëb mu toppale rek nee nag mu la dugg foo ma tere maa yow de tey maa yow tey sama nar nar mooy looy def ma fekke ko loo wax ma dégg ko loo nar ma xam ko foo dugg ma dugg fa day ànd ak yow nag une heure trois heures quatre heures cinq heures six heures mu tàggu la ne la maa ngi dem maa ngi yóbbu li ma gis maa ngi yóbbu li ma fekkee maa ngi yóbbu li ma dégg xam nga fu ma jëmee moom fa nga jëm si xam nga ku ma koy jox ka ngay fekk si te kat daf ma defaraat rees na te doo ko mën a miin jant ak taw bi wax naa nun ñëpp ku tànkam lu yaa tànkam lu mbaa nga bañ a dégg salaamaaleykum Ibou Sakho maa ngi lay dénku bul ma jiwaaleeg démb ci dimanche ji de du moom de du ma moom ñoo ñu la waaye du man de ëllëg ci talaata ji it ñeen ñu la waaye du man man tey laa fi mos a ñëw tey laa fi gëjit du ma la ko nëbba nag maa ngi lay yendu foo dugg ma dugg loo def ma gis ko loo nar ma xam ko loo loo loo foo dugg ma dugg fa loo wax ma dégg ko loo nar ma xam ko ànd ak yow nag zuy foo jëm mu jëm fa loo def mu fekke ko loo wax mu dégg ko rëllale ko bu sii séeree mu tàllale loxo ne la maa ngi dem maa ngi yóbbu li ma gis tey maa ngi yóbbu li ma fekke maa ngi yóbbu li ma dégg xam nga fu ma jëloon moom du Ndakaaru kat du France maa ngi jëm moom fu nga jëm si ca bàmmeel ya xam nga ku ma koy jox maa ngi koy teg ci loxo yi ka ngay fekk si yéeg nga ne daf mën a rectifier passé na te du ma dellu si waat te doo ko mën a niim وما كنتم تفترون أن يفتدى عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن سننتم إن لا لا يعلم كثير مما يعملون وذلك ذنكم التي سننتم بربكم أدريكم فاصبحتم من القادرين تي فإن يصبروا فالنار مسؤول لهم وإن يستعتبوا فما هم من المكسبين yàlla na ne doomu aadama yi yéen a gënoon a ñaw yéen a gënoon a waali waaye mënu leen woon a muus muus ba dugg fu ngeen yóbbuwaale wul seen i cër ana kan ci yéen a man ñëw ci bunt wekk noppam teg ci bunt ba dugg dox soxlaam génn fa bi noppam dem ku ko mën ku mën a ñëw ci bunt wekk say loxo teg fa dugg def dara génn ñëw jël ko ku mën a wekk say tànk dugg def li ngay def ñëw jëlaat ko ah gaa yooyu ngay duggaale nag da ke ñooy enfant secret yi nettali li nga def te kat dëgg dëgg dëgg dëgg kenn ku ne si ñun yàlla dina xëy dikkale la waaw dikkale la nag fuuk la engagé la ne la mbaa yëg nga ne dafa woo benn buux boo war a buuxati yéen nga ne loo di yaay yaa tibb boo war a sax amatu fi ginnaaw loolu nag maytu wala benn joxe nga jégg ko xefe gën a oyof fay bu mu rootati bu mu jógati pour que bii yaa ko fa yëkk dootoo ko solo ah coffre-fort bii yëg nga ne ko solo ko dootu ci dem nokk gi doon dëgal ñëw sax maa ngi koy jël ne ko bipp nga ne bëpp mu ne dama yem ak yow fii da nga ne yaa moom kër gi tey ma génne la ko yaa doon jaay ni ci dëkk bi nga dëkk tey ma génne la dëkk bi maa nga jëm ak yow fu ñu yóbbu métti yi dinaa fexe it ñu lay gunge ñëpp ku ne dinaa ko pikir pikir bu toll ni mu néeg laa fallax suuf ba cala ba ma fekk la ku ñu ne ma xam na ma xii dem nag contrôle la woo sa bopp du si toll noonu ñu la ko dencal gan jant bu soo tabaxan an tabaxin